salaamaaleykum wa rahmatullah dama leen doon bàyyi loo xel rek ci unk nga xam ne jamono yu bari na trop trop ci kër yi danger bi nga xam ne am na ko ak li nga xam ne ni la mën a faagaagalee ab njaboot ci lu gaaw wax nañu ne sax yonante bi sallallahu alayhi wa digal na xeet wi ne fu ñu ko gis nañu ko rey ñu bari nag duñu bàyyi xel ci loolu beneen mbir bi mooy ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllum médecine surtout tubaab yi gëstu nañu ba xam ne onk moo gën a danger jaan yaakaar naa fi képp ku gis jaan sa biir kër di nga daw wala nga sàkkal ko pexe ne nañu ñoom gëstukat yi muy médecin yi jàngat nañu ba gis ni onk moo gën a danger jaan ndax ne nañu maanaam moom aw deram wala dara la jóge ci moom man na euh, jeexal ab famille famille maanaam njaboot lëmm ci diir bu gàtt nee nañu sax maanaam dangaram wala boog lii génn ci moom am na ñoo xam ne yuut la ñuy wax waaye lépp lu unkulaar rek ci gàttal maanaam képp ku ko jëfandikoo boo amul ndimbal ci lu gaaw ci juróom-benn fukki seconde mën nga ñàkk sa bakkan maanaam ci benn minute mën nga faatu yaakaar naa jaan sax reyam gaawewut noonu moo tax na nañu moo gën a danger jaan ñu bari nag duñ ci bàyyi xel ndax dañu gis ne unk bu nekkee ci biir kër gi dafay nekk di jàpp mbóot yi di lekk mbaa muy jàpp yooyu yenn rab yu sew yi nga xam ne daf leen di xatal unk bi daf koy lekk moo tax ñu bàyyi ko ci kër gi te xamuñu ne rab yooyu muy jël moom unk bi mën na xëy faagaagal njaboot gi yépp ci benn bés wala ci benn guddi ñëpp xëy ñàkk seen bakkan loolu nag war nañ ci bàyyi xel kon fépp fu ñu gis unk ci biir kër yi bu ñu am jàmm mukk fekk sàkkal ñu ko pexe wax nañu ne ci gëstukat yi ba tey ngir sàkkal ko pexe wala jëlee ko sa biir kër da ngay jël xorom ak laaj nga jaxase ko xorom ak laaj nga jaxase ko bépp ruq nga def nga def ko fa ci biir kër gi koñ bu ne nga ut loo fa def fépp foo yaakaar na mën nañu fa làq nga def fa dara ci laaj ak xorom boobu nga jaxase nee nañu loolu boo koy def de balaa yàgg ñoom ñëpp danañu gedd kër gi te mën a amaana dootuñu fa ñëwaat. juste rek si sama waa ji borom 220 bi si audio bu am solo bii mu dugal ci wàllu unk macha allah rabbi lii dina sensibiliser nit ñu bëri bëri bëri bëri te maa ngi ñaan ñi ko si groupe bi mu jot fekk am na ñeneen ñu bokk ci yeneen groupe nañ ko fa jàllale ndax li mu wax nii lu wér a wér la yàlla def na man am naa sama ñaari doomu nday yoo xamante ne ñoo bokk ndey ak baay ñu nekk Dakar ñoo bokk même kër ñun ñoo bokk kër ñun parce que suñu kër dafa am internat euh, ku ñu wax Cheikh njaay ak mbay Ndiaye Cheikh Abdou mooy mag ji euh, rakk ji mooy Mbaye Ndiaye c'est-à-dire cas bu mel nii ci wàllu unku loolu moom kenn natt man kenn kenn du ma ko nettali man suñu kër la xewe booy yi euh, comme daara ja souvent lekk bi da doon des guddi gi léegi dañ koy denc amaana léeg-léeg ak denc bi ñu koy denc mën naa am du du du du du mate ni mu war a mate ci denc bi booy nag guddi gi euh, rakk ji ak mag ji ñoom xam naa guddi gi ñu xiif ju tijji benn bool di lekk biñ ko tijjee di lekk ñoom ñaar rek ñoo ko doon lekk comme kenn xamul nu mu demee te guddi la woon biñ lekk ba pare ñu tëdd bi ñu tëddee nag bool bi dafa yeewu après commencé di wàccu di wàccu rakk ji moo njëkk commencé di wàccu di wàccu Euh, bi mu jógee noonu pour dem si toilette yi daanu mag ji moo ñëw yëkkati ko bi mu ko yëkkatee ba pare ñu ànd daanu ñu jël leen yóbbu leen si Sicap Mbao juste ñoom ñaar ñëpp foofu leen wàccee liggéey rakk ji moo njëkk wàcc liggéey mag ji topp si nga xam ne ñoo bokk ful leen jullee ñoo bokk bin leen bi yóbbu nga xam ne lu yéeme yéeme la ci wàllu unku te waa hôpital ñoo leen wax ne leen dañoo laal lu unku laal ñoo lekk lu unku laal kon loolu moom wax dëgg yàlla maa ngi ñaan nañ nit ñi yaatal audio bi nañ nit ñi yaatal audio bi sax waaye dugal si sensibilisation bi barki Cheikhul Khadim ñooñu muy taaw ak ki topp ci taaw ñu góor noonu lañ faatoo yàlla seere na ko kon lu garaaw a garaaw lu yéeme yéeme ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla musal si ñëpp képp ku ko gis sa kër li waa ji wax bul am jàmm te defoo ay pexe yu tax mu jug juge fa moom ni muy faatee amul lu ko mën a faatee maanaam dafa dangereux xam naa li si yàlla def daal doy na waar yàlla sàmm ñëpp ànd ñëpp barki Cheikhul Khadim